di nuyu ñi ñuy seetaan ci suba teel gi di wax rek ne ñun xëy na taxawaay bi ñu ci am daf solo bi mu ci am mooy ne ci diggante ñaari tuur yi Macky dafa ñëw sababu woon seet bi bu mu ñëwee seet ñu ñu toog sekk waxtaan ci waxtaan woowee dafa am lu mu ñu waxoon comme ñun askan bi moo ñu tax jóg yeggee nañ ko askan wi dañ koy fàttaliwaat askan bi di ko ko fàttali moom ak gouvernement am ndax daf nañu woon ci juróomi at yi dinaa créer cinq cent mille emplois moo ko wax ci juróomi at yi dina def li nga xam ne moom moo tudd couverture médicale pour tous les sénégalais kon nekk na yoo xamante ne ni moom kàddoom la ñu ngi ko ci xaar ci loolu. Ah. waaye de manière générale li ñuy xaar ci ngornement ci Abdou Mbaye mu wax ñu ko mooy ne pàcc boo ci jël bu ne am na lu ñu ciy xaar rupture la ñu wax mbirum dund gi ñu ngi koy tudd léegi nii non seulement bu ñaan nañu ñu wàññi dund gi mu cher mais mu nekk ay mesures yu am solo parce que wàññi dund rek du loolu la ñu soxla. dafa war a am luñ lu koy accompagner. Mhm. xam nga dañu bugg tâtonnement yi amoon ci nguur yële waase bu mu fi amaat ñu nañu nguur gi wax ne ñu ne am naa programme ci mbay mi. Mhm. moo xamante ne nii danañu yóbbu ci ñetti at ñu am autosuffisance alimentaire xaalis bi ñu koy liggéeyee bailleur bi moo ñu ko jox wala fii lañ koy jëlee nii lañ koy jëlee dërëm bu ne fii la jëm rendre lu ñu ci compte leeralal ñu ko. Mhm. càmm gi nañ ko jël mesure tel napp gi licence de pêche yi dinañ xool ni ko tasaaree nan lañ ko jox nan lañ ko octroyé. ak naka la ak nan la. jox ñu it naka la ñuy jëlee fa ñuy jëlee seen xaalis parce que tamit jël rek ne def nañ programme nangam ak sangam ñu xëy suba ñu ne boru boru réew mi toll na ci nangam soxlawuñu loolu nay leer. nga jógee ci loolu soo ñëwee ci wàllum dundu ñu Sénégalais yi xam nga dañuy ton sonn ci impunité bugg nañu mesure yi strict ci bugg nañ suñu justice bi indépendante maanaam. exécutif bu mu am doole ci kaw justice bi. bugg nañ Sénégal rééquilibré waat taxawaayam ci ni muy taxawee ci monde entier bi c'est-à-dire babysitting bi fi France doon def si ñun ak yeneen i réew ñu wane ful la gu doy nekk. tubaab bu fi dugg si ñu laaj la visa ndax dañ ñu koy laaj suñuy doomi réew. xoolaat suñu nekkin ak suñuy nawle ndax éviter yi nga xamante ne yu mel ni ko Yaya Jammeh ni mu yabee Sénégal di rey suñuy doomi doomi réew wala suñu doomu nappkat yi ñuy rey ci côte Mauritanie beeg Guinée Bissau gi xoolaat suñu nekkin ci biti ñu parce que loolu itam soxla nañ ko. Mhm. mbirum courant bi ñu fexe ko saafara une bonne fois pour toutes nañ ñu wax plan bu clair. Mhm. parce que ñu nekk ci e millénaire ñu bëgg ñu l'autre ci l'homme du néandertal ñuy tali sondé la ko mat courant bi dañ ko bugg dañu bëgg ñu régler ko on veut plus de tâtonnement parce que il est temps après cinq mois maintenant nak il faut que ñu wax ni nak courant bi ñom lan mo ci seen programme ak lan moitié ci seen plan. Mhm. bu ñu luyeel groupe mais nañ ñu ko saafaraal d'une manière générale mu jeex ñu taggo waxu courant. Ah. waxu alal khalis salaire rek ñom sen ak yoy train de vie état bi wàññi gi il faut que population yi sentir ko parce que buñ né nee wàññi nañ train de vie état din nañ ki wu magistrat ak nangam ak sangal éliminer nañ sina, ak Sénat ak jàppal bay dafa wara fenc ci askan mi ci naka mm-hmm. na dund gi ko na lu yas gi ko c'est important mm-hmm. te ne na jeunes liggéey transport amna luñ ci xaar parce que boko xolé Dakar dem dik day dem te du foog ñu xolat transport bu mu demee. te transport dafa am lu mu lal dafa and ak tali yu bax bëri na ci tali yu baxul dafa am larbe gi cache la forêt rek moy ñent tali yi fi sa ngor ci ngóor waye tabaxoon waaye la ko des ci réew mi yépp amul tali yu bax kooku nañ ko wax té dé maintenant euh Thiat euh, c'est vrai que yéné bi la mouvement Y'en a marre ci askan wi waaye foog nga ni. Euh, ma ne su la defandoo lépp li ngeen laaj gouvernement bi ak ko fi mën nek ëlëk également di ngeen ko may ab dir di ngeen jiital également priorité bu naree def lépp kat lañ fi dikkaloon ni jamono ñu gas fépp rek foog ne fu ay chantier la bakkook ñun waaw xam nga xam nga dañuy yag nax ñun Sénégal ci ay futilité ñu def ko priorité mhm. mais def na né urgence population yi aujourd'hui ñek bi ci ñek moy dund ci mhm. ba ca top moy courant bi am na beneen boo xamante ne muy ñaar yoo xam ne dañ koy fàtte toujours muy éducation parce que école la ñuy waaj a ibbi. tey at yu ñu weesu grève yeeg élèves yi jàng jànguñu professeur yi bugg nañu déwén bugguñ ci dégg grève li lay war a sóoli. grève moom parce que am na mesure yoo xam ne laajul xëy na nga nekk génie pour créer ko. comme waxtaan la laaj professeur élève étudiant ñi toog ñu xool lan la ñuy saafara problème boobu foofu ah. c'est important c'est une priorité parce que réew dañ koy xool avenir am ci njàngam ak ah. fajam si la santé est malade hmm. réew moomu la doy na waar ah. donc santé bi nañ ko xool

ak baral am ci mu leer ñi def ñu tek leen i daan ñi deful ñu seetal leen fi mbir ya leer mhm. yeen fofu ban taxawaay ngeen ci am mouvement Y'en a waaw ñun yaakaar nañ ne justice Sénégal am na mat gu day ne dana rendre justice ku ci tooñ danañ la daan ku ci tooñ danañ la leer danañ danañ danañ la setal mhm. waaye li ñuy ñaan rek mooy longue détention préventive yaak dossier yu yéex yi fi daan am ak dossier yu rax politique yeeg pouvoir exécutif bu am doole ci kaw justice naan ko defal bii génneel bii génneel bële. yooyu moom bugg nañ mu dakk ci Sénégal. Mhm. dañ bugg rek justice def liggéeyam. ci temps bi ñu ko war a defee. mais pour ce cas ci nga baal ma dogguma la. Mhm. ndax yéen bokk ngeen ci ñu doon génne gune yooyu. ñu dem Colobane ak yooyu. loru ci da ngeen di toog di seetaan. non ñun def nañ ci li ñu ci war a def lépp. Mhm. jaar na ci fi ñu ci war a jaar lépp waaye xam nga lan lañ mënut def mooy ñëw ci président maanaam ne ko dañu bëgg ngeen bàyyi ñii. dañu bëgg justice def liggéeyam. xam nga jeune bu ci ne lañ la jappé amna ku ci ne ak sa cas particulier mhm. amna ño xamné manifestation lañ leen jappé won ak rassemblement loolu du yoon parce que loi aayewul manifestation ak rassemblement mhm. surtout que ci domaine biñ ko doon défé sax nga xamné rassemblement yi euh, euh, dafa tombé won ak pré-électoral gaay yi nekk ci mbirum élection donc c'était normal mhm. ñoñu lé seen cas gën na yooyof waye daf ci am yenen cas yu ci rax ci démé ni que ñu japp peut-être nee nañ ne dañ leen fekk ak ay ñu ñu ñu toj ay Sénélec

teg nit ki lu mu àttunul ak laaj ko lu mu amul réew mi dafa am tolluwaay bu ko fekkoon am ñu ko jël am yàquwaay bu ci amoon foo xam ni ñoom ñii moo tax ñu waa yanamaar moo leen taxoon a jóg ànd ak askan wi nag parce que ñoom bu ñu jógoon rek te askan wi ànd ci du sotti ñu ànd ci ak askan wi mu mel ni man fi ma bëgg a jëmee sama waxtaan moo di El Hadj Assane dannu ni xaalis bi dañ koo jël yóbbu ko bitim réew ñu war a indi xaalis boobu mu bokk ci ñuy tax lii ñu bëgg ngeen ñu def ko ñu ñu ñu ñu ñu mën koo mën a def ci anam yu rafet. beneen bi ci des mooy ñu ni yoon na nañuy atte teg dëgg kun ko war a teg mu teg la ko li ko Alaaji Asan di wax kun war a teg yoon ñu teg la ko kun ko warul a teg ñu bàyyi la may ñu kii beneen bi ci des mooy priorité yi da nga ko wax léegi da nga ni njàng mi école boo ko limee lépp fépp ay metti Alaaji Asan nee na wopp màggat la foo laal yaram woo laal muy metti mm-hmm. kon am na ay priorité njàng mi ci la ñu jublu mais wér gu yaram wér-gu-yaram mbënn maa ngi nii waxuñu ci donc yooyu yëpp ay priorité yoo xam ni réew mi boroom réew mi ak ñi mu àndal fokk ñu xam lan lan ci jubluwaay mais yéen dafa mel ni yéenay faj askan wi yéenay indi fe yéenay feebaru askan wi. parce que bu ngeen ànd ak askan wi xeex ba li jóge fi ngeen tegat ni yéen it lii ñu bëgg loo ne def njàng mi réglé leen ko indi leen kii est ce que foog ngeen ni laajandoo loo xam ni dafa laaj xaalis bu bari te xaalis bi néew fi ñu war koo jëggaani dina yombal lii ñi nga xam ñoo bokk ci réew mi les seen seen seen seen seen taxawaay. waaw xam nga borom kër gi yeewu dem ñaanib soxna indi ko ci këram teg ko fa am moom njaboot. Mm-hmm. kooku bu fajul dundalul yarul yóbbuwul l'école waru garam la wàcc na ko Macky Sall moo taxaw ci 11 millions de sénégalais yëkkati loxoom ne maa mën. Mhm. jox leen ma ma def. kon ñun am nañu droit ne ko da ngay def ndax danga ne damay def ñu jël dénk la yàgg sa fukki morom ak lu topp woon di laaj nga wax ñu. convaincre ñu ci la nga wax sénégalais yi daal en tout cas dans la majorité mm-hmm. ñu dénk la réew mi kon li ñuy escompté ci résultat dañu koy indil bugguñu tâtonnement mm-hmm. maanaam ñun li ñu war a def li ñuy taxawaay bi ñu ci taxawee ñun ñaanuñu on impose parce que suñu droit la ñoo ko moom dañu dem ci élection mu wax est-ce que askan bi ay programme kon askan boobu am na droit aujourd'hui rend laaj ko ne ko mu rendre ñu compte fu ñu ci toll ci lañ ko dénkoon mm-hmm. lengay réew mi ñu ko dénk mu rendre ñu ci compte ne kat fii laa jëmee Sénégal loolu la ñuy xaar ci politique générale bi mm-hmm. bugguñu mu nekk tâtonnement bugguñu mu nekk ay turi programme parce que mm-hmm. yàgg nañu fi dégg turi programme REVA Goana ak ñàngam sàng dañu bugg mu nekk lu concret mm-hmm. lu leer lu askan ñu mën a jëriñu sëkkandiku ci mu nekk ay mesures yu taxaw di nga wàllu inondation yooyu nga tudd léegi dañu war a bàyyi ñap ñabal ñun Sénégal ak xëy rek na këtt ne jon gouverner c'est prévoir nañu ut plan assainissement bu taxaw